ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax ku ne xam ne ni euh, sànq ba léegi ñu ngi woo commission yi benn bu benn par benn di leen euh, amal ay laaj ci bis bu mucc ay bii di màggal Touba maanaam naka lañ ko ressentir yi ak euh, commission yi disposition yi ngi si jël ñu ngi ni commission sécurité ñu dalal Serigne Cheikh xam naa dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu doog a jàll ci laaj yi Serigne Cheikh ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum. alhamdulilah bisimilah inna waliyallah jërëjëf Serigne Touba. jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëfe Cheikhona ahmadul xadim alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf cheikhuna ahmadul xadim maa leen di fay nuyu euh, jërëjëf sëriñ Cheikh ci nuyoo bu ama am solo boobu nuyoo bu Baay Faale boobu noonu nuyoo bu am taalibe boobu noonu xam naa question bi ñu lay njëkk a laaj mooy maanaam yan disposition ngeen jël ci bis bi ci sécurité bi ci bunt bi ndax ku ne xam na ni fii dëkk bi ni mu mel ak voisin yeeg yooyu yan disposition ngeen si jël ba maanaam nga xamante ni duñ ameel àq kenn te bis bi dana mucc ay waaw sëñ laaj bi ma laaj question bi neex na ma parce que lu tax ma a neex na ma parce que déjà sécurité xam nga lépp mooy kiy saytu maanaam doomu aadama yuy dugg ak yuy génn di aar seen kaaraange ñun nag dañ fee nekk ay soldats Serigne Touba lañ neewul ay armes lañ ay puissance lañ yor naan jërëjëf Serigne Touba suñu gàllankoor. moom la ñuy tàmbalee ci moom la ñuy yem waaw maanaam dugg bi ñu ngi koy saytu ak génn bi ñu ngi koy saytu ak li nga xam ne mooy circulation bi nga xam ne euh, maanaam téye kenn bañ indi kenn gàllankoor ci bés fii daara bu euh, yoon la boo xam ne nit ñi dañuy dem ak ñëw am na loo xam ne ay voisins lañ koy éviter maanaam tamit di sant ku tedd ki bay tooñ tamit ku tedd ki santul maanaam moo tax ñu nekk si tali bi boobu ba léegi gaa yaa ngi si biir ko maanaam saytu bokk taalibe yi ak soxna yi ak dugg bee génn beeg yëpp yaakaar naa ne bés bi moom lu waaye di mën a def ak lu waaye nu mën a mel bu liggéeyul ku tedd gi si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul pett nga waaw nit lekk loo mën a def si àdd ak noo mën a mel boo liggéeyul ku tedd gi rek pett nga Euh, macha allah Serigne Cheikh ci leeral yu ama am solo yooyu noonu maanaam xam naa dañ koy bàyyi mu delluwaat ci liggéey bi comme que dafa nekkoon ci liggéey bi ñu bàyyi ko mu tàggatoo Serigne seex lan ngay tàggatoo ak lan ngay soññ mbokku taalibe yi fi teew. waaw mooy li ma wax léegi rek mu mujjee wax rek képp ku waaye mën a nekk ak foo mën a nekk ak koo mën a doon boo liggéeyul ku tedd gi ci Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul perte nga waaw loolu mooy perte nga kon maanaam ak nu mu mën a dem ak nu mu mën a ñëwee ndigal bu ñëwee dañ koy jëfe waaw saa su ñëwee dañ koy jëfe nu mu mën a ñëwee dañ koy jëfe waaw di sant mbokk taalibe di ñaan yàlla ñu fekk ko ay atti atti at ndax maanaam lii ñun rek ko am ñun rek boobu ba léegi nit laaj ne li xew fii li xew fii am na ñoo xam ne boobu ba léegi yow day nga seede ñi ngi laaj ne maanaam dañoo fi am seen doom ñu bëgg indi pour ñu jàng alxuraan tout ça kon am na loo xam ñun ñi nekk fii ñoo war a mën jox barab bi benn àq boo xam ne ne fii ku fi ñëw respecté ñu ku ñu gis respecté ñu waaw loolu daal la amoon lu may tàggoo di ñaan yàlla suñu borom li nga xam ne pour Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul moom mu yër xéewal yi te faj aajo moo ci gaaw yàlla ñu fajal suñuy aada ñu ñëpp barki Serigne Touba Xaadimu Rasuul. Euh, jërëjëf sëriñ Cheikh xam naa dañ koy bàyyi mu dellu ci liggéey bi xam naa après ñu dalalaat beneen commission jàll ci mbooloo yi euh, ñu laaj leen lan mooy seen euh, seen yëg-yëg ci bis bi jërë ngeen jëf. Aye.